saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa jàngat bu yaatu ba journal sunu làmb xëyee ci Balla Gaye 2 mbooleem combat Balla Gaye 2 yi gën gaaw ci carrière am yooyu la sunu làmb xëyee ba mu ca jukkee nag ñetti combat la ñu jukkil digganteem ak Modou Lo digganteem ak Tyson digganteem ak Baboy ñetti combat yooyu la sunu làmb jàpp ne moo gën a gaaw ci carrière Balla Gaye 2 mën nañoo wax sax ne ñetti combat yi ëppoon enjeu ëppoon coow moo gën a gaaw ci carrière Balla Gaye 2 le dimanche 21 mars 2010 digganteem ak Modou di waxtaane Modou Lo ak Balla Sénégal gépp mel ni ñaari mbër képp fi nekk koo wax mu ne Balla wala Modou Lo bile combat Luc Nicolaï moo ko tëggoon le mars 2010 Balla Gaye 2 ci 21 secondes bile lim doon bëri coow di bëri enjeu yëpp matul 30 secondes ci 21 la ko Balla Gaye daane romb ko jàll ci même année amaat Baboy daal di koy defal bagage le dimanche 1er mu amaat combat bu bëri coow digganteem ak Baboy bu Pikine boobee it fa mu jaar ak Modou Lo foofee la jaar intitulé le combat de tous les digganteem ak Tyson la woon ñu jàppoon ko le 31 juillet 2011 bi la Balla Gaye 2 waxoon yépp da koo def la mu xamle woon mooy bu bëree ma daan ko bu xeexee ma daan ko rax ca dolli ne dama koy daante combat bi du durer minutes na ma ko waxee la ko defee matul sax une minute ci 30 secondes la daane Tyson jaar ci kawam jàll ñetti combat yooyee la journal sunu lamb jukki ne yile combat ñoo gën a gaaw ci carrière mu nekke woon moom Forza na yëkkati ay kàddu kàddu ya mu yëkkati bokk na ca situation làmbam ak ña ko làmb booleel ña ñu jàpp ne digganteem ak ñoom ay combat yu neex la ba ñu ko laajee ci fusion Ndakaaru ak Fass la mu xamle mooy rafetlu nanu ko réunion ba Moustapha Gueye woote woon ca këram ñun ñépp ko teewee lanu nar def wax nañu ko dégg nañ ko gëm nañu ko rax ca dolli ne ànd nañ ci à pour cent yeneen kàddu ya mu yëkkati bokk na ca ña Sa Thiès bu Guédiawaye bu ñëwee bëgg naa ko Yékini parcelle bu ñëwee bëgg naa ko yile adversaire ku ci ñëw ma jël ku ci ñëwul dangaa ragal mbiri wii kuloo ba léegi képp kuy acteuru lamb boo yëkkatee kàddu da nga ca wax jëmm ji ñuy wax père Omès Diagne kuy suivre lamb xam nga ko xalaatam ci wii mooy bokk na ci liy rey lamb lamb ji ak bi mu toll daal ëpp nañoo organiser ay combat sans la présence du public lamb ju amul public mook cere ju amul ñeexayem li ñu war a def daal mooy ñu def un huis clos ci stade yi nga sàmmonteeg mesure barrières yi amateurs yi la nar a neex amateurs yi mooy duel ba léegi lay décroché diggante ngeer ak mbay jëy fay combat boobee décroché nañu ko talaata bii ñu génn lañu taxawal bile combat diggante mbay jëy fay bu jimboore ngeer bu tay si nga bile combat daal journal ba xamle mooy fépp foo ko natt weesu na ko képp kuy wër combat bu neex boo yegsee ci biir sa xol dana sedd amateur bu ci bëgg combat bu neex boo seetaane bii sa xol dana sedd li ni mel sax moo waral mu dippe ko duel a